Assane Samb maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay baax. Assane Samb ban analyse nga ñuy defal ci sortie bi nga xamante ni gouvernement bi def na ko démb euh, ministre premier ministre Amadou Ba euh, ministre des force armées Sidiki Kaba ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome euh, doon waxtaan ak euh, sénégalais yi ci crise bi nga xam ni réew mi mi ngi koy traversé yow noo ko gisee sortie bi. waaw man damay jàpp ni saa bu gouvernement jógee rek di wax rek am na loolu am na solo wax ak askan wi dafa am solo surtout bi nga xamante ne réew mi dafa nekk ci ay jiixi jaax yu natti ñu ñëw ay trouble euh, maa ngi doon xaar sax wax dëgg yàlla gouvernement bi gën a teel a waxtaan ak askan wi déggoon ay communiqué conseil des ministres mais loolu doyul ñu jàpp ni situation bu ëgsee foofu kër bu jaxasoo yenn jaxasoo yi ab dëkk bu jaxasoo yenn jaxasoo yi borom dëkk ba wala borom kër day jóg waxtaan ak nit ñi ñu ngi doon xaar waxtaan woowu mu gën a teel waaye comme tardé na ba aussi fii nag ah dañ koy rafetlu rek jàpp ni boo xoolee ministre yi taaw taxawoon da ngay jàpp ni attaque bu mag lañ defoon ci wàllu communication eh, xeex boobu nag boo ko gisee attaque boobu c'est parce que am na eh, ay information yu génnoon sur le plan international ay enquêtes yu journalistes yi def foofu ay déclaration yu Nations Unies def déclaration yu CEDEAO def ay député yu yeneen réew ay kilifa ci yeneen réew pour inquiéter wu ci situation Sénégal donc foofu état bi euh, autorités yi dafa mel ni dafa am pression bu tegu seen kaw pour que ñu jàpp ni fi mu nekk nag war nañ wax wax ak waa Sénégal wax ak waa bitim réew expliquer joxe seen version ci li nga xamante ni moo xew donte comprendre naa ni bu situation de noonu il faut que ñu analyser ko xool les preuves door a mën a prononcé wu donc euh, offensive médiatique la maanaam euh, lu jëm ci wàllu communication mën nañu wax ni gemb euh, la bëre la song la ba métti euh, léegi nag am nañ ci ay résultats ci yenn côté yi bon évidemment lu jëm ci information judiciaire yi ñuy ubbi enquêtes yi pour atte ñenn ñi enquête ci situation bi à fond loolu bettuñu parce que procureur déjà defoon nañ ci communiqué depuis talaata Euh, baneen bi mooy jàpp nañ ni ñoom ñu ngi seet ay instigateur maanaam koo xam ni yow yaa suuxlu woon joxe ay conseil wala joxe ordre jëmale ci li nga xam ba li tax ba tax li am am loolu aussi bett ñu maintenant am na ci ay point ay poñ yoo xam ni ñun jàpp nañ ni euh, voilà communication bi des na lu jëm ci li ñu tuddee ay force occulte mm-hmm. lu jëm ci ay loolu ñu naan ay étrangers yi nekkoon ci biir lu jëm ci effectivement ay nervi yi nga xam dafa indi polémique Euh, ak yooyu yëpp euh, des na communication bi ante de ante de amaana des na mais aussi communication bi des na donc ñu ngi xaar effectivement gën ci am lu leer li jëm également ci organe de presse yi ñuy tëj euh, pour ñenn ñi surtout Walfadjri ak yenn journalistes yi nga xam dañu am ay difficulté mhm. nekk nekk en détention donc yooyu yëpp bëgg nañ ci gën nañ nañ ci daal ay leeral yu gën a xóot mu jógee ci li nga xamante ne mooy autorité yi. Euh, nga gis ne te aussi euh, Sidiki Kaba ministre des forces armées moom mi ngi wax ñi menacé naan dañuy yóbbu état wu Sénégal cour pénale internationale ci mbir mi nee na ñu ne mel euh, li ñuy wax amul fenn fu ñu ko teg mënuñ ko dañuy rêver est-ce que yow da ngay dëggal li Sidiki Kaba wax waaw wala déet Assane. waaw waaw dama koy dëggal parce que cour pénale internationale du noonu c'est bon. Euh, bu amee fii ñuy yóbbu cour pénal international mooy ñi sàcc alali jàmbur ñi profito ci événement yi toj alali jàmbur ñi profito ci événement lakk kër jàmbur ñi profito ci événement bi eh, di taal oto jàmbur ñooñu nag fu ñu leen di yóbbu donc euh, force de défense et sécurité mënuñu woon toog di seetaan euh, nit ay nit di yore arme ay nit di yàq nit di rey nit di song leen sànni xeer ñoom ñu toog di seetaan je pense que riposte bi mënul ñàkk bu fekkee yow da ngay attaqué war nga xam ni ki nga jàkkaar lool mën na riposte riposte bi nag amaana mën na ëpp yenn saa yi mën nañ ci boole def lu ci bokkul war mën naa nekk mën naa nekk ay erreur am yooyu yëpp mën naa nekk mais li wóor mooy ñëpp xam nañ ni euh, l'état du Sénégal tëbul rek jël ay armes di tirer ci ay civil parce que dañ doon manifester pacifiquement parce que cas yu mel noonu la ñuy la ñuy xalaat cour pénal mooy nit ñi nekkoon ci seen i droit di manifester pacifiquement nga ouvrir le feu ci seen kaw te fii c'est pas le cas manifestation yi pacifiquement donc xalaatuma une seconde ku ñu yóbbu Sénégal cour pénal wala benn autorité sénégalaise devant cour pénale internationale parce que cour pénale internationale du caaxaan foofu dafa am procureur euh, dafa am euh, ay ay poursuite dafa am euh, procureur dafa war a défendre sigem Gbagbo lañ dem Côte d'Ivoire ba mënuñu ko mënuñu ko topp correctement waxuma laa nag fii ay autorités sénégalaises nga xam ne ci cas yi am na ay agression yu jóge ci manifestation yi. Mm. Mm-hmm. Assane euh, aussi blocus euh, bi am ci kër Ousmane Sonko cité kër góor gi euh, Antoine Félix Diome expliqué na ko nee na li tax caravane bi ñu récupérer ko ñëw denc ko parce que dafa doon amal caravane boo xam ni amul autorisation en plus nit yaa ngi de mi ngi indi désordre ci dëkk bi looloo waral ñu récupérer ko tëj ko créer blocus bi foofu ca cité kër góor gi pour mu orga bañ a organiser ti benn caravane boo xam ni autorisé wuñ ko. explication boobu Antoine joxe noo ko gisee. waa ni ma gisee mooy d'accord ma ci ni ñu tëjee këram kër Ousmane Sonko bon ku ñu tee ñu te ñu te arrêté caravane bi kooku d'accord naa ci parce que am na ku ci faatu un certain Aliou foofu ci Kolda bon amaana euh, aussi. caravane bi amul woon autorisation yooyu comme mu ngi indi ay problème mën nañ ko arrêté que ñu jël Ousmane Sonko indi ko Dakar dérangé wu ma mën naa comprendre mais ke ñu tëj ko si këram nangu ay portable am ay ordinateur am banaan portable yi li ci nekk ak lii ak lii loolu d'accord ma ci parce que amul benn base légale parce que loolu sax boobu décision condamnation amagul kon damay kon dama naan man fan la état bi teg nga xëy rek dem ci benn citoyen tëj këram ni kenn du fa dugg moom itam du génn njabootam du ñu dugg du ñu génn te njabootam googu déjà situation bi concerné wu leen euh, nga ni léegi da ngay jël portable am portable am ci ban base nga koy jëlee je pense que ci état lañ nekk état état bu ñu ko waxee mooy ay règle règle yooyu day tënk citoyen yi tënk état bi ci boppam nga xam ni boo bëggee topp un citoyen wala nga teg ko dara wala nga laal ci euh, intimité am wala vie privée am dara wala matériel am Euh, surtout portable dafa war a am benn décision légale benn mandat wala décision légale bu lay may loolu loolu ñun gisuñu ko woon donc ay maintien de l'ordre mën nañ ko comprendre que à chaque fois état bi dafa obligation maintenir l'ordre mais maintenir l'ordre nag du tax nga jël benn citoyen nga lor ko euh, nga jël benn quartier lor ña fa dëkk continuellement parce que loolu yëpp dafay nekk bu boobaa abus day dugg jàpp naa ne effectivement li xew par rapport ak cité Keur Gorgui am na abus de droit am na yoo xam ni euh, teguñu ko effectivement ci loi ci ni ma ko xalaate waaw beneen beneen laaj aussi euh, Ousmane Sonko est-ce que normal na euh, nu mu tuddati Assane même bu fekkee dañu ko jugé en contumace deux ans de prison ba léegi mu toog këram nuñ ko jële yóbbu ko kaso est-ce que loolu lu normal aussi ci réew moo xam ni comme niñ koy waxee nous sommes nous sommes dans un pays de droit. waaw contumace bi moo jëkk normalul parce que contimence mënoo ko ki nga koy jugé mooy ki nga gisul xamoo fu mu ne wala ku daw mais koo xam ne mu këram nekk si le territoire national mënoo ko jugé par contimence léegi nag au regard contexte bi ni mu demee juge bi jàpp na ni contimence la te bëgguñu koo jëli mu indi problème bon donc ñu jugé ko ni nekku fi gëmm niin gisuñu ko mhm. daal di la loolu moo jëkk a euh, doy waar. Ah, beneen bi ci tegu nag mooy biñ ko condamné ba pare évidemment ñu ni bon dañuy xaar juge bi def xawma ma tribunal bi def euh, benn notification du jugement bon euh, yooyu yëpp ay juridisme la rek mais man jàpp naa ni effectivement buñ la condamné dañ la war a dañ la war a arrêté. Mm. buñ ne procureur mooy yore décision boobu actuellement procureur bu su demee tribunal jox ko kayit woowu. dafa dem jëliwu bu demoon bu demee jëli ko ñu jot ñu jox ko ko parce que loolu problème greffe la rek greffier yi yooyu ñooy dressé ces actes là euh, en rapport avec le juge donc man gis naa ni foofu lay am na fi lay mooy bokk ñu yor jëli waa ji parce que xëy na buñ ko jëlee dina am problème mais aussi beneen problème juridique dina am mooy da ngay reprendre le procès waaw te loolu daf koy remettre sur ses droits parce que boo reprendre procès day amaat présomption d'innocence nga war a organiser procès moom mu am droit appel nekkaat ci présomption d'innocence ba entre temps élection yi mun na ñëw donc mu mën bokk yooyu yëpp ay calcul man yu ma xalaat ni jàpp ni effectivement yooyu rek mën na tax ñu bàyyi ko fa mais situation la boo xam ne mënul continuer parce que day lor waa cité kër góor gi la lor ñiy dendeek Ousmane Sonko te seen yoon nekku si ñu dëkk ak moom ay njabootam nga xam ne responsabilité pénale benn nit la concerné concerné wul tout un quartier wala concerné wala tout un parti politique il faut que également le parti Pastef bu dee parti légal mu continuer di exercer activité donc yooyu yëpp ay ay équation la yoo xam ne gouvernement yi war na ko résoudre d'une façon intelligente c'est vrai que mu ngi essayer mu ngi jéem contexte bi yombul comprendre naa parce que tamit dafa am ay soulèvement populaire yoo xam ne dafa nekk pression soulèvement yooyu aussi bon euh, ñi koy def ñëpp ñooy tegu ci yoon ñu ngi yàq ñee ngi toj ñee ngi yàq état bi aussi jàpp ni moom itam lépp lu muy def man na ko a teg ci yoon loolu la niru en fait donc ak fayantoo la euh, man jàpp naa ni état bi mun na gën a rectifier xool nan lay gën a meubler décision ci wàllu yoon méngale ko ak li nga xam ne mooy charte fondamentale ak loi yi nga xam ne mooy régir le Sénégal. voilà merci beaucoup Assane Samb maa ngi lay ah. remercier bu baax a baax ci leeral yi. ñoo bokk voilà ñuy fàttali ni Assane Samb analyste politique la ñu ngi koy remercier bu baax a baax. jërëjëf